Ibra Jonn. Ibra Jonn lu la xiir ci lii. ah liggéey rek liggéey rek. léegi naka la la inspiration bi duggee yow Ibra ah waaw maanaam gis naa ni man lii nii maa ngi ciy liggéey di ci fortaatu pour maanaam dara yor sama sama njaboot rek loolu de moo ma ci dugal. léegi yow da nga jël saret bi. Hmm? ma danga jël saret bi def ko def ko marché ambulant quoi. waaw di tourner moom jaay. waaw ce système lan la en fait système bi lan la en euh, système comme. waaw naka ngay naka naka nga ciy génne quoi naka ngay doxalee quoi. naka laay doxalee. Ah. damay dem jëndi bagage bi ñëw sotti ko ci saret bi. Uh-huh. di dugg ci koñ yi. Uh-huh. di woote damay woote de. da ngay woote damay woote client yi di génn. waaw client yi génn rek moo waxtaan ak ci loolu laay dox. non affaire bu grave mi ngi nii ah. léegi yow yow yow lan mooy sa lan mooy sa cursus fan nga loo foo jàngee lii ba ba am inspiration bi lan la lan la foo jógee waaw man moom wax dëgg yàlla jënd ak jaay moom dama ci moom dafa nekk loo xamante ni dama ko bëgg uh-huh. man moom sa wër laa mais en jëkk tamit dama koy boolee loolu dama koy boolee jënd ak jaay dafa dama ko bëggal sama bopp daal jënd ak jaay moom dama ko bëgg daal lu ma bëgg la wax dëgg yàlla est-ce que gis nga différence bi entre yow ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy dem dañu nekk marché waaw ñu am nañ différence nag parce que des fois ñoom ay différence cent franc maa nañ ko ëppalee des waaw su ma ne différence mooy si si njëriñ bi quoi c'est-à-dire yow est-ce que gis nga ne gis nga ne yow lii yaa ngi ki génn ko waaw maa ngi ci fortaatu moom wax dëgg yàlla ah. maa ngi fortaatu de ah. maa ngi fortaatu moom dëgg dëgg bu fekkee dëgg la yàlla bëgg <laughs> maa mën nañu wax ne lii livraison à domicile la daal. waaw à domicile la c'est ah, noonu la demee sax. ah noonu la demee. affaire bu grave léegi fan fan ngay dem yan yan ba mun nga dem ba fan ak fan. man fi ne nii. Hmm. maa ngi départ APEX damay dem ba ginnaaw gendarmerie foire euh, ci cité bi ci ginnaaw damay dem ba foofu. Hmm. foofu lay retourné nag su ma départ comme démb maa ngi départ APEX encore damay dem ba parcelle. ba parcelle. waaw léegi yow ñaata client à peu près nga am. client yi de moom wax dëgg yàlla moom ka moom wax dëgg yàlla. client yi moom wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi fortaat de. Ah. waaw léegi client yi moom sans départ rek xam nga dëkk bi moom mooy loolu. dëkk bi ñëpp mënuñoo bokk dóorandoo mais wax dëgg yàlla ñi ko xam moom. da nga xamante ni seen liggéey mayu leen tamit ñuy dem. wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax dañoo xam ni moom boo leen jaayee ba pare sax dañ lay ñaanal. dëgg waaw parce que danañ bëgg a dem jëndi mais jënd gi du du mën a kii quoi. di nga di nga jaay ay patron ay façon bu nee ngay jaay ko ñëpp laay jaay moom tout le monde ki yor téeméer ak ki yor junni ñëpp laa yemale kenn ku ne boo ñëwee daal li nga yor ma jaay la ko nga def mais yow fuy sa cosaan ba nga am genre esprit bi esprit de développement man maa ngi dëkk ba dëkk bu ñuy wax Taïba laa dëkk Taïba Sanc waa lan mooy lan Taïba lan mooy particularité Taïba ba mooy lan moo lan moo am Taïba ba ba ba muy ba muy ba muy jur ñi nga xam ne dañuy am genre ah, esprit yi foofu de moom bay ak yooyu bay ak yooyu de et puis am nañu jàng nag am nañu ay jàngkat aussi am nañu ay jàngkat. mais est-ce que jàng est-ce que jàng moom est-ce que jàng mooy joxe mooy joxe ah, ah? loolu affaire bi du xalaat rek xalaat rek parce que li nga li nga def nii hmm. bari na ñoo xam ni teewa nañ ko wax dëgg yàlla dañuy taxaw yéemu ci lool wax dëgg yàlla hmm. waaye nag yàlla mooy defe noonu daal hmm. parce que am na loo xam ni lekk ak naan moom mënut a ñàkk am nit ñu moom à chaque fois dañ koy soxla am na ci ñoo xamante pour ñuy dem di déplacé wu di dem ay caaro yi ay ay kastoor yooyu day métti ci ñoom tamit benn benn parce que pass bi boo ko calculé ak bàyyi say soxla di dem foofu day métti ci ñoom kon lii dina leen dimbali daal dina leen bu baax a baax loolu rek moom moom lañ xalaat daal. macha allah vraiment kontaan nañ ci yow parce que su fekkente ne sénégalais yëpp xalaatee nañ ni liggéey ñàkkul. waaw waaw n'est-ce pas. bañ waaw fan lañ la mën a jot téléphone yow. téléphone 77 549 0005 wala nga jël 70 804 889 96 53 tur fi ñu nekk nii fan la. fii ñu ngi. fii Ouest Foire la nekk nii waaw. yow yaa ngi entre zone Ouest Foire ak. fan Ouest Foire bi instant bii maa ngi foofu ci kanam ay vers 3 heures. dama koy génn maa ngi dem ci ginnaaw gendarmerie Foire bi. incha allah. maaleykum salaam. ayca Ibra Dione ñu dem ñu dem tuuti. ñu dem tuuti ñu avancé tuuti kaay kaay kaay. yëgal yëgal yëgal ma ah dañuy kii la waaw. léegi fas bi moom léegi affaire moom mu gën na baax non. ah waaw fas bi waaw moom wax dëgg yàlla ba heure bu wàccee lekk bu baax a gën a lekk sax ñun. moom léegi moom bi nga est bi nga commencé affaire bi. ci la fas bi gën a lekk bu baax. boppam sax fi mu ne nii day maam ak xam na ko. jarul jaratul dóor. sama jarbaat bi ñu ma barki démb. ah nee na ma barki démb fas bi dafa maam ak sareet bi ma ne ko ëpp nay def dee bu baax a baax a baax parce que da cee yëg boppam bu baax. wax dëgg yàlla parce que nii may doxe nii ni lay doxee rek. Ah. ba ngoon jot bu demee day lekk dugub bu baax repas bu baax. Mm-hmm. dëgg yàlla dëgg ah. yàlla waaw. est ce que mom yëg nga ne mom comprendre na liggéey bu bess bi fas bi fas bi comprendre liggéey bu bess comprendre bu ko à 100 mais ah. mi ngi ñëw nag mi ngi ñew nak ah. mi ngi ñew mom xamna fa nak fan la client yi nek ak yoy non mais mi ngi ñew dank dank parce que amna benen fas bu ma ko doon defee mhm. mais fas bi ren la ñew quoi ok ren dal lañ ci commencer di dóor léegi lan lan ngay jaay man fi ne limay jaay dugg mom général hmm. ah. la jaay mom général dugg dal bo ñew ci saret bi ci carton yalla dina la jaay lo xamante ni mom di nga kontaan lool am na client yoo xam ne sax des fois ma wax leen prix yi ñuy xaw a gis seen bopp waaye bu ma leen jaayee pare dañuy kontaan ak jël sama numéro. ah léegi bii mooy maanaam bii mooy sareet supermarché la. waaw sareet supermarché yi waaw <laughs> sareet supermarché. bii mooy sareet supermarché. waaw bii mooy supermarché. ah bii moo bii moo gën a grand Auchan. yoo bii kay beneen affaire la. ah bii moom am na ñoo xam ne dañ may ñaanal yàlla. dañuy dañuy ñaanal yàlla. waaw ah d' accord. si client eh kii bokkul say client ci la bokk eh non filmé wu la filmé ah si client yi la bokk ah oui kii nag la lay faral di jënd moom par exemple maire bi filmé wu la ah mais maire bi jënd lépp lay jënd pour taxaw ah? ci saret bi ñoom moom wax dëgg yàlla dañuy njukul bokk na si ñu lay encouragé waaw waaw ah? yombal na leen mbir mi yombal na leen ko quoi waaw ah, léegi kii directement ci ci ci kii bi ah oui d' accord waa kay ñu ngi lay ñu ngi lay jërëjëfal jaajëfal vraiment kontaan nañu. Eh, ñu ngi lay encouragé parce que lii mooy indi développement Sénégal dégg nga. waaw mais uh-huh. am na loo xam ne waroon naa ko. wa waaw bu jàllale ko. waaw parce ñun nag dañ fay nekk di dóor waar di góorgóorlu ci saret yi nii. waaw waaye benn instant nii wax dëgg yàlla yonent bi nag ñu ngi ci am ay jafe-jafe mm-hmm. ay jafe mm-hmm. maanaam daal ñu ngi ñaan daal. bu fekkee ni mën nañoo dimbali daal. waaw ñu jàpp la ñu mën a liggéey. parce que liggéey jullit daal moom li li li cëram. waaw mooy liggéey. jaamu yàlla uh-huh. kontaan nag dañoo ñëw pour liggéey dóor waar Mm-hmm. suñu sareet yi lan amee mm-hmm. yoru ñu ay oto vraiment mm-hmm. ay sareet lan amee ci lan mën a mën a liggéey pour mën a am dara ñëwuñu pour di agressé ñëwuñu pour banditisme dañoo ñëw pour liggéey jariñu maanaam nag ki yor oto ak ki yor sareet yëpp benn lan yàlla na dafa def daal ñun ñu war a liggéey nan liggéey dun daal bëgg nañ wax dëgg yàlla ñu jàpp lañu tamit ci sareet yi vraiment ñu jiima góorgóorlu jàpp ci ñun it ñun borom sare yi ñun li nga xanté ñom la ni bañ ñun ñu bañ ko def jima japp ñu nit góorgóorlu ñun ñu bokk ndey bokk bàyyi waaw ñu dal daal gënte julit tan borom fofu la ni waxee wa ñun fas nañ la jappalé ah. nañ ci def lepp lu ñu mën vraiment ah. pour mun a pour parce que jaru initiative yi mom mom la ñuy dañ dañ ko daf ñu daf ñoo soxal daal ah. parce que japp nañ ne développement ni lay si lay ni lay ni lay déparer nit ni dañuy faral di di xép xox mais xoo xooxu guy guy la. waaw loolay dégg nga waaw xooxu guy guy la quoi. maanaam ñun li ñuy jaay nii sax bu ma la waxee dëgg. waaw ah. amu ci lenn loo xamante ni luñ importé lépp Sénégal. lépp Sénégal la bu ñu ko mënee am daal ñun moom la ñuy jaay ci kàttanu yàlla. Mhm. fii ak gisuñu ko nag ñu xam ne gisuñu ko mais fii ñu ngi koy gis moom ci loolu la ñuy jëm. Mhm. ci kàttanu suñu Kumba Ndoofeen Lat Joor Joob ñoo fi nekkoon sunuy buur bari doole te xarañ lool si nag baawal Kajoor Saalum loo fa ñaan fekk ko fa seeni jaar-jaar ci Sénégal umpul benn mindaafoon ndax dañ daan bañ nootee nasaraan baa sabab li fu ñu tollu wàlleen ñaanal amin yaa rabbi